Euh, asalaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV euh, mbokk yi tey nag maa ngi fii ci stade euh, municipal alaaji Moustapha Niang bu Tiwaawoon ngeen gis travaux yi ni commencé avec le maire Demba Diop si mbokki yi nag tey damay wax ni kenn yabaluma fi kenn wu ma fi ma xëy rek ñëwal sama boob pour contrôler au moins li nga xamante ni mooy travaux yi parce que am naa ci ay ay ay ay expérience yoo xamante ni euh, premier jour bi nga xamante ni collectif bi ma bokk muy collectif sama sport sama avenir euh, bokkoon naa ci ñi ñu yabaloon pour ñu dem waxtaan ak le secrétaire municipal en même temps euh, damay liggéey Mame Ndokh TV am naa ci benn contrôle boo xam man maa ko war a defal sama bopp ça dire que kon le maire ma fi Euh, ñi nga xamante ni ñooy collectif bi yabalu mañ fi Mame Ndokh TV moo fi ñëw Alxaaji Mbaye Diop pour wan leen li nga xamante ni mooy travaux yi ngeen xam ni euh, li li entrepreneur bi waxoon mu ngi ci ndax bi ñu demee waxtaan ak moom dafa waxoon ni euh, dinaa ko commencer te duma taxaw dans trois mois dinaa livrer bon tey nag ñu ñëwoon doon xool si liggéey bi ñu ngi fi fekk ouvrier yi ñuy liggéey léegi nag li ñuy def mooy dañuy dem xool ñi xamante ni ñooy ouvrier yi liggéey bi nga xamante moom la ñuy liggéey dinañ ci am sax ñoo xamante ni dañ leen di interroger ñu wax ñi exactement liggéey bi naka lay euh, seetaan foofu euh, ñu dem waxtaan ak ñi nga xamante ñooy ouvrier yi wan leen aussi li nga xamante ni mooy liggéey bi mbokk yi comme ni ma maa ngi fii ci stade bi euh, kii mooy Bakary sama promotionnaire la sama xarit la ma ak moom ñoo ñoo yarondoo ñoo màggandoo muy jàmbaar nag ci liggéey yi gën a mag ci Tivaouane dama ko ciy fekk muy jàmbaar koo xam bu tàmbalee du bàyyi Bakary maa ngi lay nuyu. waaw maa lay euh, mm, ma waaw maa lay nuyu bu baax a baax Ndox TV. Mm-hmm. mais dama la ñëw la tey ci stade bi ngay euh, li ngay gas lan la. bon li ñuy gas pour euh, affaire pelouse stade bi. Mm-hmm. pour gazon yi ñu war a defar. moo tax gars yi jël si ma ma ne naa ñëw daan sama doole rek jàmbaar. waaw mm-hmm. mais mais mais dafa mel ni lii mooy canal yi quoi fi ndox mi war a jaar pour. waaw waaw lii mooy canal yi canal yi dañuy six mètres yu nekk. nga trois mètres cinquante yu nekk rek ñu génne benn. alignement. génn benn canal yi pour canal yi mën see dugal tuyau yi hmm. après dañ ciy teg euh, béton bi mën a teg tuyau yi. Hmm. waaw a teg euh, gazon bi. gazon bi ci kaw voilà waaw loolu mais liggéey bi kañ ngeen ko commencé. liggéey bi fii ak xanaa euh, une semaine ah une semaine ngi ko. ah une semaine a fi waaye. Hmm. waaw mais kañ nga di di ngeen di ngeen pare. non kii nag mënu ma wax à peu près nag xanaa nga laaj ingénieur gas bi ngeen di gas wax non gas moom fii ak euh, xam naa quatre jours. Hmm. waaw fii ak quatre jours cinq jours daal mu jeex normalement. Hmm. mais gis nga ci sa bopp quoi yow doomu Tivaouane nga vraiment ñu liggéey statut Tivaouane woo la nga jàpp ci liggéey bi est-ce que gis nga ci sa bopp ci liggéey bi. non gis naa sama bopp bu baax a baax a baax. Ah. gis naa sama bopp waaw. macha allah waaw nga xamante ni mooy entrepreneur bi yéen a fi nekk donc ki nga xam mooy superviser liggéey bi naka nga ko gisee seen seen seen taxawaay ci liggéey est-ce que jàpp nga ni jël nañ décision liggéey ko rapidement wala déet. nañ vraiment décision xam naa lii ñu jot a rek hmm. wane ne moom jël nañ décision moom pour liggéey. kon daal ay jàmbaar lañu quoi. ay jàmbaar lañ te incha allah moom dinañ ko liggéey moom. Ah. waaw kon daal waa Tivaouane mën nañu dalal seen xel ci ni li entrepreneur bi waxoon ni ñoo ngi ci liggéey bi mën nañ dalal seen xel li mu ngi ci kawam. waaw loolu moom nañ ci dalal seen xel rek. waaw ku tëdd moom nelawal rek incha allah affaire yi moom narul yàgg moom yaakaar na sama ah. yaakaar. Ah. warul yàgg. jërë ngeen jëf mbokk yi kooku mooy Bakary moo res affaire fi tuyau yi war a jaar euh, léegi nag ni ñuy dem mooy dañuy dem seet ki nga xamante ni mooy superviseur bi entrepreneur bi mu wax ñu euh, fan lañ toll ci liggéey bi jërë ngeen jëf Bakar jërëjëf merci beaucoup El Hadj euh, jërë jëf euh, mbokk yi je suis avec euh, Moustapha mi nga xamante ni liggéeyu stade bi moom moo instant yi moo koy superviser moo ko res gis nga sànq bi ma génnee ci nga xamante ni mooy Bakary mi nga xamante ni mooy gas fi ñu war a lal tuyau yi Babacar nag Moustapha ñëwoon naa fi boobu dañuy doog a tàmbali di dressé ñu waxtaan ak moom mu wax ma ni ma ñoo ngi ci te duñu bàyyi tey ñu ñëwaat fekk ni mu ngi gën a avancé nit nag lim la wax démb bu méngoog li mu jëf tey day wane ni li muy wax dëgg la ci moom Moustapha maa ngi lay ziar. delloo ziar ah bon tey dañu la ma waxoon benn wax tey ma ñëw gis ni la nga waxoon yaa ngi ci euh, tey lan nga may waxaat. waaw ñu ngi ci rek léegi gis nga nga ñëwee keroog ak léegi gis nga ne am na avancement. Mhm. waaw ñun moom liggéey bi moom ñoo lañ ko gën a bëgg ñun ñi sax mhm. parce que ñun liggéey rek lañ bëgg mhm. waaw ko waxee woon incha dinañ ko def comme noonu mhm. xam nga entrepreneur bi keroog ba ma demee ci le secrétaire municipal euh, dafa wax ni doomu Tiwaawan la maa ngi liggéey te du ma te incha allah le plus bref délai dinaa fexe ba ngeen jot ci loolu yow mën nga ko confirmer waaw mën naa ko confirmer man mi dèjà du doomu Tiwaawan mais ñi may liggéey ñu ñëpp Tiwaawan lañ dëkk te ñoom gis nga boo leen laajee kuy Moustapha mën nañ la kuy mm-hmm. affaire bi amul ay rëy rëy loog yooyu mm-hmm. affaire bi ñi ñëpp war a jàpp si liggéey mu avancé mm-hmm. parce que avant moom amoon na ay critique mais na gis nga ñun nag mënuñ dara loolu jàpp si bu baax mu avancé daal ah, te incha allah ñu ngi taxaw si bi nag moom dinañ ci dugg bu baax a baax mhm. mais foog ñu comprendre ne nawet lañ nekk aussi mhm, mhm, waaw foog ñu gars yi comprendre ne yàlla mooy dogal mooy def lépp waaw mais li ñuy wax moom incha allah dinañ ko respecté maanaam bu ma déggee sa wax mooy mën nañu joxe délai mais dele bi euh, même bu ko passé yéen du ngeen il suffit que ñu gis ni yéen a ngi ci liggéey bi rek bu passé délai bi nit ñi comprendre nga bëgg a wax non non xoolal am na benn pax pax bii nii ah. gas boo ko woon léegi laaj ko moom quatre heures du matin dem si la fi nekk di ko gas xam kooku bëgg na liggéey waaw mhm. ah, man bu muy ñëw sax yëguma dañ ma woon ne ma booy mu ngi liggéey man la ah loolu loolu nice la xam nga kenn booy yi fi nekk sax ñoo gën a bëgg affaire bi kon jeex kon daal mën nañ wax les sportifs ñu dalal seen xel ci daal yéen a ngi ci liggéey bi quoi mais est-ce que est-ce que est-ce que yéen ak euh, ki nga xamante ni mooy maire Tivaouane bi vous en phase ci liggéey bi ngeen ko bëggee est-ce que moom aussi noonu la ko bëggee waaw noonu la ko bëggee moom noonu ko bëggee moom ñu ko bëggee rek loolu la ko bëggee hmm. kon daal mën nañu daal suñu xel. sa xel comme man maa fi nekk man Moustapha. Mhm. ah jàmm rek. waaw dëkku Tivaouane bu Seydi Hadji Malick nag bu nu ko joxee Moustapha mu ngay superviser ba pare sant Janka moom it ah, dégg naa am na ay sëriñ yu sant Janka de. yaa yaa yu baay yaa yu baay yaay Baye Niass bu sant Janka nga sant Janka tudd Moustapha ñëw dëkk si daaj mari sunu xel man na dalal loolu sant yàlla la quoi sant yàlla kon ñu lay sant bu baax di la gërëm waaw jaajëf mbokk yi gis ngeen sànq bi ma waxtaanee ak Moustapha bi nga xamante ni moo sant Janka di mbokkum yaay Baye Niass euh, tey nag maa ngi taxaw ak le président de la commission sport Gora Seck euh, Gora maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay grand village. Euh, gis nga tey li nga xamante ne mooy Bakary waxtaan naa moom mu ngi ci liggéey bi nga gis liggéey bi mu ngi avancé ma waxtaan ki nga xamante ni mooy représentant entrepreneur bi fii moom aussi li mu wax dal na suñu xel mais yow en tant que le président commission sport euh, lan nga ñuy wax par rapport ak euh, municipalité bi. waa bon El Hadj dañ lay vraiment remercier aussi par rapport ak ce dynamisme donc ci li nga xam ne ñu ngi koy pratiquer comme travaux ci ci ci espace communal bi. mais liñ ci mën a wax rek moom mooy mooy li nga gis donc gis nga di gars yi euh, travaux yi mi ngi mi ngi avancé à donc les gens sont sont sont sont de plein pied dans les travaux te xam naa ni bientôt li ñu diggoon population bi incha allah dinañ ko réaliser. kon mën nañ xaar di daal la le monsieur le maire Diop si waxoon les sportifs ni leen euh, le plus bref délai di ngeen jot seen stade mën nañ ci bàyyi xel. loolu amatul werante présentement parce que instant bi nii man saa yu ma xëyee dinaa jaar stade. xool nit ñi li ñuy liggéey su ma ci gisee benn rëq-rëq dama koy alerter directement parce que pour man loolu moom mooy rôle commission. Hmm. commission sport ñaari rôle la am muy mission d' orientation ak mission de suivi. Hmm. orientation bi def nañ ko ba travaux yi démarré suivi bi ñu ngi ci chaque jour que jëfee hmm. bu bu ma ñëwul dañ fexe ba benn membre commission sport jaar fi rendre ñu compte. ñun ñu partagé ci donc loolu moom vraiment gars yi ñu ngi koy doxal te xam na ni fii fii ak euh, bientôt incha allah dinañ ci gis li ñu xam ni moom lañ ciy xaar. kon daal mën nañu daal suñu xel ñun waat waaw. non bu baax a baax a baax a baax parce que ci lañ bokk ñun ci commission ci sportive yi lañ bokk. donc xam na ni lii moom mooy suñu sag mooy sagu Tivaouane. jërëjëf Gora mbokk yi dégg ko mu ngi noonu le président commission sport goor Seck nga xam moo fi représenté monsieur Demba Diop si borom sabadoot bi mbokk yi daal mu ngi noonu ngeen bàyyi seen xel surtout les sportifs ci nii am ngeen comité de suivi mais aussi am ngeen beneen comité de suivi mooy Mame Ndokh TV euh, fu affaire bi toll dinaa ko jël ñoom war leen di leen fii leen toll ñu ngi sant bu baax di la gërëm di sant ñi nga xamante ni ñooy waa Tivaouane yëpp ci liggéey bi nga xamante ni moom lañ di remercier aussi le maire de la ville de Tivaouane parce que la ma ñu waxoon mu ngi ci Demba Diop si